ñëwee xëy na ànd naa ak yëngu tuuti du lenn nag balaa xër njaboot gi bëgg jàkkaarloo yow sàkku sa ñaan ma lay andi nuyu président Macky Sall la ma fiy wax la ma fiy dox ci ndigalam laa koy mu am yéene fonk diine def ci diine lu bari bëgg njabootu Baay bëgg jullit yëpp bëgg doomu aadama yëpp ba nga xam ni yéeg-yéeg bi mu am ci ni mu ko bëggee jàpp naa ni mënu ma ko waxee noonu kon dina jéggalu ci kàddu yi ndax mën naa bañ a bëgg-bëgg bi nga xam ne maa ngi koy yëg ni am na ko ci kër gi am na ko ci Sénégal jàpp naa ni ni ñu ko yëgee man mënu ma ko waxee noonu ñu ñëwoon ñuy sa njaboot ñun ñëpp di la ndokkeel di la ziar di sàkku si ñaan rawatina ci weer wi ñu nekk muy weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ko màggal ci màggal mucc ay bu laaj gouvernement bi bàyyi ci xel gouverneur def ci le rapport. nañ na rapport ministre l'intérieur def na CRD ministre yu bari ñu fi fiy jaabante président ne demal nga xoolal ma ndax ni mu ko bëggee ak ni ma ko santee nañ ko noonu te la ma ciy doy mooy nga dem xoolal ma la ma ciy doy mooy nga dem waxtaan ak sëñ bi bu ay nit di daje dafa xam am loo xam ne dañ ko yittewoo bu ñu nekkee ci gàmmu ni Sénégal bindoo ak fi àdduna toll dina am yu bari yoo xam ne gouvernement war na ci dugal loxoom war na koo seet rawatina bu gàmmu bi amee ci jamonoy nawet moo tax Serigne bay Thiam ministre bi nga xam ne moom moo yor mbir yooyu mi ngi foon dem gouverneur wax na ma ni visité na chantier incha allah dañ ci gën a bàyyi xel ba mbokk taalibe yi mën a ñëw fii ci jàmm ak salaam jaamu fi sunu borom delluwaat seen kër ci jàmm ak salaam te ndox mi xëy na mën na leen dinaa ko gis léegi balaa may dem pour mën a wax ak président moo fi jógee bu amee loo xam ne dañ ko yittewoo muy lu jàmp loo xam ne mënut a ñu jéem a ci gouvernement bi waxtaan ci président de la ndax ñu mën ko ko loolu lañu ñu waaye ci fànn boobu Kaolack soxla na lu renforcer assainissement mais ci gàttal senegal yëpp assainissement bi ak ni nawet bi bindoo léegi war nañ ko seetaat war ci seetaat lu bëree bëri ak doon bi moo soppeeku dinañ fi ñëwaat ci yeneen anam waxtaan ak yow ndax am na xalaat yoo xam ne président am na ko ci nee na nañ la ko jottali ndax amul lenn luñ fi mën a def ci dëkk bu mel nii te amuñ sa ndigal ndax yéene bëgg dëkk bi liñ fi bëgg a def dafa war a seen bëgg-bëgg dëppoo seen yéene te it muy seen ndigal am na programme yu rëy yoo xam ne gouvernement bi dafa fi tàmbali incha allah dañ fi ñëw tànceeg yéen ci jamono yu gàtt ministère yaa ngi ciy liggéey am naa yaakaar ni dimanche bi ñu ñëw wala dina technicien dinañ ci pare bi dinañ ko jébbal gouvernement bi dina ci waxtaan ak président de la di ñëw buñ ci joxe ndigal rek dañ fi ñëwaat waaye li ma ci mën a wax mooy yéene bi jëm ci kaw la yéene bi jëm ci Medina Baye rëy na lool. ñu nekkee ci gàmmu yi dañuy soxla courant ndokk nag directeur général seen di ko sant bu baax di ko gërëm xam naa ni doom la ci kër gi gis nañuy kër yi ñuy jaar yëpp la nga xam ni def na ko ba nga xam ni am nañu yaakaar ni ñu yàlla doole sutura mawlu bi dina jàll ci jàmm ak salaam te duñ ci am ay jafe-jafe ci wàllu courant man daal li nit mën a def te mu dëppook suñu doole def na ko ngir benn jafe-jafe du fi am bu ñu nekkee ci gàmmu yi dañuy soxla wàllu santé wér gu dëgg la am na lu am kaw la mais dinañ ko dolli renforcer ko ba xam ni ñi fiy ñëw doon seeni i gan buñ fi ñëwee ci amee kenn koo xam ni la la dal yitteewoon nga giseek docteur di nga ko mën a def ci anam bu gaaw anam bu rafet anam bu mucc ay waaye président santé daf ko ñor moo tax mu am programme bu yaatu boo xamante ni daanaka at bu nekk ñu defar ñeent bu juróomi hôpitaux yu mag am na boo xam ne defal nañ ko Kaffrine parewul yàggul maa ngi gis docteur Cheikh Kanté mu may xool président am na yéene defal ko foofu beneen hôpital bu mel ni bu nekk Kaffrine bi nekk la gi dinañ ko xoolaat bu baax def ko def fa hôpital moo xamante ni moog bi nekk bi ñuy def Fatick ak bi ñu nekk Kaffrine ñoom ñooy bokk daanaka dimension li ci président bëgg mooy li ñuy wax équité maanaam ni ñu mën a koo xam ni da nga wéri war a faj ni mu doon amee démb ak barki démb nga fi jógee ñu dem Dakar war nga ko mën a defee foo nekk ci Sénégal yenn saa yi dina am ay natt yoo xam ne bu la dalee ci ngay xam jéego yi nga dox accident bi ci amoon daaw ci fii ci booru Kaffrine lim ñu jàngal mooy guléet ñu am natt bu day noonu méttee noonu ñi ci loolu yëpp ñoom ñëpp ñu fajaleen ci dëkk ba ak ay jumtukaay yoo xam ni moo gi nekk Dakar ya soxla wu ñoon jële fi kenn fii ci Kaffrine wala yóbbu ko ba Dakar <coughs> am na bi am na Sédhiou am na Ziguinchor am na Touba incha allah dina am Kaolack ci at bii ñuy dugg incha liggéey bi dina tàmbali loolu day tax ñu wane ni def nañu ay jéego ndax la daan am ci jamono yi weesu ak yi weesu nit ki boo mësaan a feebar am na foo xam ne bu fa toll rek Ndakaaru ngay waaye loolu moom président Macky Sall dafa bëgg a jeex ci Sénégal ba dox na ci ay jéego yoo xamante ni suñu borom bu baax di ko bu gàmmu ñëwee dañuy soxla sécurité. ndax ku ay nit dajee yàlla mooy sàmm waaye am na ñoo xam it loolu mooy seen liggéey mooy jéem a sàmm nit ñi sàmm seen alal gouverneur li nga xam ni soxla woon na ko ndax moom moo yor fii ci waxtaan ak préfet ak sous préfet la nga xam ni soxla nañ ko ci ay nit ak matériel incha allah loolu dina fi teew diiru gàmmu bi ba gan yi mën a ñëw ak jàmm jënd si ak jàmm dellu seen kër wax gouverneur balaa muy jóg ñu ci amee ay jafe-jafe nañ ci wax incha allah ministre de l' intérieur jot na ndigal président loolu la bëgg mais nag fu doomu Sénégal nekk nañu fexe sàmm la mais nañ ci bool yi yoon yi nga xam ne moom mooy ñëw fii ndax bari na transport bi am na nu muy bindoo yenn saa yu bari mën na cee service de sécurité incha allah disposition yi ci war kooku gouverneur xam na ni ñu koy defee ñu koy sant bu baax di ko gërëm di ko félicité parce que ñu ngi def liggéey bi mucc ayib loolu la ñu gis ci bopp loolu moo doon suñuy tànk di ñaan nga ñaanal réew mi jàmm jàmm gi mos réew mu naat te naataange bi du mën ko bokk nga ñaanal li président Macky moom ci bopp ndax gis naa ci moom booy liggéeyal askan da fàtte sa bopp daf ma ne boo fàttee day neel sëriñ bi da ñaanal waa Sénégal yóbbante bi kon jottali naa la ko waaye ñun dañ ci yokkit nga ñaanal ko moom ak njabootam ndax yàlla may ko wér may ko mucc defal ko sutura bàyyi ma kooku moom xëy na yónni wuñu loolu waaye ñun ñu nekk moom xam yéene bi mu am ci Sénégal xam yéene bi mu am ci Afrique gisit njëriñ bi nga xam ne amal na ko Sénégal amal na ko Afrique amal na ko adduna bi yëpp ñun ñi ànd moom mënuñu ko bañ loolu ndax moom daa fàtte boppam ci li ci loolu kon seen may nuyu mbooloo bi di leen sant di leen gërëm biñ fi ñëwee nag léegi am na xibaar bu fi rot muy su mel ni jarbaar sa doom soxna mën a yàlla moomu soxna Seyda Mariama Niass di woon waaye siis xam na li muy bu baax am ci yàgg moom ma léegi fanweeri at daf ñuy génn at mi léegi dañ ni kenn ci njaboot dafa am ci wàññeeku ñuy ñëw la koy jaar nga indil njaalu président ndax fii la ñu ko waxee lay sant bu baax ndax gis nañu loolu dafay wane sa dimension ci wàllu diine gëm yàlla ndax am na loo xam ni bu dalee ci yow am nga ngànt waaye bu dalee ci yow nga nangoo toog ak ñun nga sagal ñu ak nit ñi fi teeroo yaag njaboot yëpp ñu sant la gërëm la ñaanal la fii tey ci Médina ngir bokk ak ñun bés yu tedd yi nga xam ne ñu ngi koy dund ci biir Médina mooy bisi yi juddu yonent yàlla Muhammad yërmande boobu nga xam ne yàlla moo ko wàcceel doomu adama ba doomu adama mën cee jànge dara jaam mën cee jàngee ni mu toll mën cee jànge civilisation mën cee jàngee xam-xam mën ci jànge nekk nit mën cee jàngee nekk nit nit ku am njëriñ jëmale ci boppam loolu yëpp ñu ngi ko amee ci bés yi nga xam ne ci la yonent yàlla Muhammad judd bokk na ci barke yooyu nga xam ne dina koy feeñal waxtu wu nekk dëgg-dëgg jotaay bi ci barke yonent rek la soo amee waaye nit ñu yem ni daraja yu yem ñëw toog ak ay voilà ku euh, ne waxal ñu waxal waxal ñu lu baax ak seen yéene yi ngeen di liggéey pour réew mi te bu ci nekk rek fekk na nit ñëpp yaakaar nañ ko ngeen ñëw toog expliquer ñu ko ñu xam ko lii lañuy liggéey lii lañ liggéey lii lañ bëgg a liggéey lii lañ bëgg pour yéen dëgg-dëgg loolu barke yonantu moo ñu ko may ñu mën a toog dégg loolu ci yéen ba fenu bu tedd gi moo ñu may ñu mën a toog dégg loolu yéen ndax su fekkee du loolu dëgg-dëgg gis kenn ci yéen yombut waaye nag loo xam ne barke la àndal jógee ci yonent Yàlla Muhammad ana fokk dafay yomba yomba yomb ba nga foog ne lu normal la waaye fekk lu exception la ci barke yonent Yàlla Muhammad ci lañ ko maye donc bon ñu ngi gërëm sa tànk yi ngeen fi ñëwee yéen ñëpp gërëm président Macky Sall ci taxawaayam boo xam ne ci euh, ku nekk mën na ko gis ci lu nekk bu ñu demee ci tànt bi tey da nga fekk ne Macky def na fa lu bëree bëri tant bu bu bi ñu àgg Macky def na ci loxoom bu baax a baax ak leneen ak yeneen ak yeneen bon yi ngeen wax ne mu ngi koy def pour diine ku ko vérifier rek gis ko parce que dafa feeñ dafa feeñ kon mënuñoo ñàkk gërëm taxawaay yu jekk yooyu nga xam ne yaa ngi koy def pour dimbalanteeg cette population ci liñ bëgg parce que booy dimbale cette population dimbalantoo ci moom li mu bëgg dëgg-dëgg dimbale woo ko mais nit boo koy dimbale ci liñ bëgg boobaa yaa ngi koy dimbale pour mu àgg fa population Sénégal yàlla may na ko xéewal na ko muy peuple boo xam ne dafa bëgg yonent yàlla Muhammad loolu Sénégal yëpp la moo tax boo gàmmu jotee Sénégal yëpp gàmmu rek la ñuy waxee gàmmu gàmmu gàmmu gàmmu ba gàmmu gi passé ñu door a dugg ci beneen programme bon nag loolu mooy wone ne Sénégal yëg na li ko yàlla may nangu na ko yàlla moo ko wax ne moo wax nit ñëpp ne leen maa leen wàcceel kii muy yërmande pour yéen nangu nañ ko te itam waxtu wu nekk occasion bu ñu am pour wane ne nangu nañ ko danañ ko nangu nangu nañ nangu nañ yàlla mooy suñ borom nangu nañ yonent mooy suñ yonent nangu nañ alxuraan mooy suñ téere ba nga xam ne jaaxle bu Sénégal am rek ñëpp oote nañ jàngi alxuraan loolu yëpp ci ngëm yàlla la ci baax la ci kawe la ci may bu yàlla may Sénégal la ah, moo tax yu ba yu bëri ci Sénégal yu bëri yu war a xew Sénégal yàlla ko ci musal ndax lan ndax dëgg-dëgg alxuraan dafa tasaaroo Sénégal ba léegi boo demee ci àll bi yaa ngi fekk ñoo xam ne léegi dañu taal matt pour jàng seen alxuraan donc bon réew moo xam ne fon fenkoon ne noonu alxuraan ala yàlla dina bàyyi xelam ci koo xam ne yàlla dina bàyyi xelam quand même sam mais yàlla dina bàyyi ci moom itteem ba nga xam ne ñii fonkee sama wax nii ba mu jaral leen lu nekk ñooñu te man yàlla am naa lu ma leen dig te dinaa leen ko defal moo yàlla dinañu sàmm yal na sàmm ak yàlla ci ñun gën a bëri gën a yaatu gën a law yal ñu yàlla sàmmal suñu population yi waaye yal nañu yàlla sàmmal suñu dirigeant yi itam parce que dirigeant yu jub mooy may population bu dal dirigeant bu maandu mooy may Sénégal bu dal te dirigeant yu maandu mooy ñu xam population yi lan lañ fu ñu jëm ak lu ñu bëgg nga dimbalante ak loolu te da gis ne population Sénégal dëgg la bëgg na développement ñu ngi ci ñu ngi liggéey suñu kenn kàttan waaye diine lu fort ci moom la diine lu fort ci moom la boo waxee diine rek déglu nañ la boo waxee ci diine safaan pare nañ ci yow dootuñ la déglooti dootuñ la buggati bon nag su fekkee yàlla may nañ dirigeant yi xam loolu ci Sénégal ñu ànd ci ak ñoom di leen ci màggal ci jotaay bi comme jotaay yu tey bi ñu ngi gàmmu premier ministre na ngi nii ñëw na fekkee si suñu jotaay yooyu bon dina xam ne ñi xam ne lan la Sénégal bëgg ak lañ lañ war dimbalante ak Sénégalais yi Pape Mbaye Mbaye euh, mu ngi wax euh, sa doom Baye nee buur kenn du ko wax sama doom buur da nga koy wax sama mbokk ah ndax buur moo tiim yëpp ah kon buur kenn du ko wax sama doom donc bon ñu lay tatagal yow suñu mbokk fii ci Médina ñu ngi lay tatagal ci xol yu ubbeeku ñu ngi lay tatagal ci ay ñaan ñu ngi lay tatagal ci ànd ak yow ci say bëgg-bëgg yal na la ko yàlla dëggalal ndax it nit buy gént avenir bu mu bëgg a defar war naa sàmmale ki muy ànd ak mu defaral ko ndax boo ko déggut doo ko mën a defar ay génération yu ndaw la ñu am si ñu ngi màgg si ñooñu fu ñu jëm ñooñu duñu leen war a jàngal ban message lañ ngeen war a yóbbu message yu xaste saaga wante bu ñi wante du message mais message boo xam da ko koy jox confiance ci boppam ne mën naa amal mën naa créer mën naa bind su fekkee dellu na ci boppam xam ni ko yàlla may mu utiliser ko pour keneen ala ala foog dina mun a def leneen dina mun a yokk loolu moo indi président monsieur le premier ministre may gént ma ne mairie na xat na dañ ko war a yàqal ah moo tax ma gént ko parce que suñ doom yi di ñëw si mënatuñ fi am kër mënatuñ fi am kër ah ndax kër yi déjà jeex na donc il faut ñu am suñ doom yi amee kër moo tax monsieur le ministre ma gis ne Sénégal ñu ngi wax ne dafa xiif waaye xiifu doy dafa teel a liggéey moo tax ma ne nañ def tool nañ tudd tool bàyyi ñu ngi koy def ñu ngi ci mboolam loo xam ne bëgg nañ muy suuf mën na koo saxal rek bëgg nañ koo ji saxal ko mu am Sénégal ba nga xam ne dootuñu ko jéggaan yi mais dañ koy am fii sax di ko jaay te loolu yëpp nit moo ko defar foofa mais nit kooku mu fii nit ki mën a defar ki mën nekk Paris di defar mooy nit ki nekk fii yàlla may na ko mbooleem possibilité yoo xam ne bu ko defee ci bëgg dara alors foo yàlla dina ci dimbale ah moo tax ñu bëgg jublu ci suuf bay lépp lu suuf mën a génn rek mën nañ ko génn ñu ngi bëgg ci njàng xale yi gën a jàng gën a yeewu ba nga xam ne ëllëg du dañ leen di naxee ay wax mais dañ leen di naxee ay jëf ah borom xam-xam mooy maa def lii mais borom xam-xam maa wax lii dafa yomb ku nekk mën ngaa ko la waaye maa def lii maa tabax lii maa amal lii ma créé sama population lii pour ëllëg ñu am fu ñu taxaw pour ëllëg ñu am fu ñu nekkee ay nit dëgg-dëgg loolu moo tax ñuy wax xam-xam waaye xam-xam mokkal naa mën naa tari rek loolu du d'accord xam-xam la waaye lu tax moo tax ñuy sàkku xam-xam liggéey pour amal pour créer loolu mooy xam-xam te ñu ngi yaakaar gis nañu ko ci lu bëree bëree bari ci euh, période Macky Sall euh, ñu ngi yaakaar période yi ñëw itam gën a gën a mel mu nekkee xale benn waaye nee na ma dama day ñaanal nga mel ni sa baay ma ne ko ba may ñaanal ñaanal ma ma ëpp ko ah, kooku dem ne tey ko bàyyi ne ko sa yi de xool ma mu ne ko ah wax nga dëgg ndax yàlla am na lu ma ëpp gannaaw yàlla am na lu ma ëpp lu nekk mën naa ñëw ci waxtoom ak ci nit ko jiite hmm? Hmm? ñu ngay ñaanal yàlla nga nekk noonu hmm? nga yàlla ñu ngi kontaan ci seen ñëw fii ci Mérina waa Mérina yëpp génn nañ ngir kontaane si see seen ñëw fii euh, xam nañ la ñu ngi door a gisante waaye xam naa la bu baax a baax ndax dama lay dama lay topp bu baax a baax boobu sax àggagoo ci daraja yi waaye xamoon naa la kër Lamine xam naa la ci say Euh, ay ay yooyu yëpp xam xam naa ko ci yow euh, wax nañ ma sax ne di ngay ñëw seet si ma waaye bàyyi ma ci paar ndax xam naa ne amoo jotu jógee dakaar ba fii pour seet si benn waaye kontaan naa ci quand euh, ñu ngi ñaan yàlla suñ bésu tey bi ñu daje ci këru yonent yàlla Muhammad gii lépp lu fi indi nit yaakaar yàlla may ko ko yal na ko yàlla may yal na ko yàlla may te yal na ko mayee yal na ko yal na ko dimbale ci amee ko ndax am yomb na waaye nooy amee noo téye ni nga am loolu mooy jafe moo tax ñu ngay yàlla lépp lu yàlla may ne yàlla may kattan boo ko téye ne yàlla may namm namm boo ko téye ne yàlla may bëggeel goo ko téye ah te bëggeel bëgg bëgg bëgg kattan geeg yëpp mooy population Sénégal bi naka laa koy doxalee ci jafe-jafe indi ko ci yomb-yomb dinaay wax ak sama gars yi ma ne kuy toog di xaar gouvernement dimbale la da ngay nax sa bopp da ngay dem tàmbali liggéey ba gouvernement gis ko bu ko gisee par force dina ci dugal loxoom waaye boo liggéeyee rek toog di xaar gouvernement bi gouvernement bi dëgg-dëgg bokk ko ci nit ñi nga xam ne dañoo bëgg a tabax ah ngi lay ñaanal mu ngi gërëm président Macky ci taxawaayam ak ak sa taxawaay parce que yenn taxawaay yi mooy maye yenn yi boo amul yenn taxawaay yi doo am dara ah? te taxawaay yi maye nag li ci ëpp mooy yar am yar am yar ci kanam sa borom bi la bind waaye am korom yar ci sa kilifa gi nga xam ne moom la yàlla boole nga am yar ci kanamam eh, ak yar ci nit ñëpp yàlla daf lay sédd mais boo amul yar yàlla du la sédd parce yàlla bëggul kuy fontoo jàmbur yal na yàlla taxaw leen yal na yàlla yokk leen yokk seen dëgëraay yombalal yëpp yombalal yëpp itam ba Sénégal bu nekk yëg jàmm ci biir Sénégalam bëgg Sénégalam loolu yëpp ay góor rek ñoo koy liggéey te ay góor ngeen te am ngeen xam-xam am ngeen volonté mais ah, dugg leen ci seen peuple liggéeyal ko dëgg-dëgg di ngeen gis ne peuple bu jar a liggéeyal la ndax peuple bu yeewu la peuple bu am xam-xam la peuple bu am volonté la boo gisee ñu dugg ci géej géej yooyu yëpp am volonté rek la bëgguma dellu gannaaw waaye bu ñu amee lu leen taaj dinañ taaj dinañ taaju yenn yàlla dimbali la taaj leen am na bu yàgg mos naa wax ne Sénégal bu nekk gouvernement bi war na créer ne Sénégal bu nekk na joxe 1000 francs pour sauver doomam ah Sénégal bu nekk na joxe 1000 francs pour sauver doomam bu ko defee gouvernement bi daal di jël 1000 francs yooyu dajale ko mun na cee defar ay liggéey yoo xam ne xale yi dañ ci liggéey dañuy toog ah wante euh, voilà ay gént rek ah yëpp ci seen loxo la nekk eh, yal na leen ko yàlla ah yal na leen ko yàlla àggale jërë ngeen jëf jazakumullahu xayran yal na yàlla yokk yokk sa daraja yokk sa maqaama